leeral tuuti TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu bismillahi rahmaani rahim ah, man de asar nasraan ni ma wéetale asal nasaraan ni ma wéetale laay daal dafa mel ni ku ñu jël ci man loo xam ni kenn xamul ni mu toll asal nasaraan ni ma wéetale ndeysaan ndeysaan Xasan Nasrallah ku ku rafet ndeysaan ak li mu xaw a li mu xaw doote dote mel nag ndeysaan ah Xasan Nasrallah xam naa moom islam du ñu mel du ñu am ko mel Xasan Nasrallah Israël day tooñ nañu de wax yàlla Xasan Nasrallah walaay xajoon nag lu mos a ak ñu koo ragaloon Isra yow sa rajo bëgg an na Assane Ousseynou ndax charisme am ak ak ak ak ak dogoom rek ah walaay weetal Allahumma salli ala Muhammadin xibaar ke mbëd to a leer mene na Leral 2 TV international ndax noon wenan ginooxa leeral 2tv international xibaar nu bëggoona nan rek nangi defa leeral 2tv international in we leya nuun njoko njal na a nan gino xale nuun nan leeral 2tv